tijani sama waay la jàmm ñal jaara busuk wala man se bi jaara bonsoir asalaamaaleykum en tout cas ñu leen di béggee bu baax a baax ci ànd bi ñu ànd ak ñun ci Click Dakar 221 te nag maa ngi fii Thiaroye ñu feete ne waxtaanee ki nga xam ne euh, actuellement il fait partie euh, buzz bi waaye aussi bokk na si nga xam ne aussi moom mooy toile bi euh, de son vrai nom il s'appelle Coupe des te nag maa ngi fii Thiaroye ñu war a war a seeni waxtaanee man ak moom ci le fait que ci ay waxtaan yu bëri bëri ci man ak moom dama koy dalee nuyoo rek ñëwaat ci plateau bi encore. maa ok merci beaucoup euh, Koumba Star ñu ngi kontaan bu baax a baax ci euh, le fait que ñu dalal la euh, wax ñu tuuti kan mooy Koumba Star. waaw Koumba Star nekk fii di doomu Sénégal di doom fii yaroo fii nekk 100 pour cent Bawol Bawol. ok nekk 100 pour cent Bawol Bawol. waaw nga jógee Bawol ñëw Sénégal ñëw Dakar. waaw di daan si sa doole. Mhm. ok laata ñuy ñuy ñuy waxtaan bi nga xam moom mooy. di si toile bi ñu commencé commerçant nekk benn xale boo xam ne euh, comme ni nga waxee léegi nga di bool bool jóge bool ñëw fii Dakar di daan doole ñu ñëw fekk la nga am euh, nga nekk quelqu'un quelqu'un koo xam ne euh, daal sa boutique macha allah di fi daan sa doole sama yow ba ñu résumé tuuti commerçant c'est-à-dire sa parcours lan la ñuy wax. waaw commerçant mi ngi ne nekk benn xale boo xam ne dafa am benn bëgg-bëgg. Mhm. benn xale boo xam ne tamit képp ku suuf rek def ko métier. kon dama foog ne man nekk xale teewut am jom. très bien. te bu ma jógee Touba. Mm. ñëw Dakar dama tàggoo liggéey tàggoo ma tàggoo ma leen. Mm. liggéey laa ko tàggoo kon war na maa marqué benn benn kii. benn empreinte boo xam ne kat nañ ne constat kat li tax mu jugoon Bawal. Mm-hmm. ñëw ñëw ñëw Dakar. liggéey taxoon ndax am na ñoo xam ne peut-être maa ngi ñu ñu ma gis Dakar foog ne maa ngi nekk si suuf bis bi mm-hmm. wala ñu may dëkkale fu bon ak yooyu noonu fekk na yooyu xale yi nekk sax mm-hmm. donte man am na yoo xam ne nekkuma ci mm-hmm. man liggéey laa xam daal sama tool nekk si mu bopp ok ñu gis aussi nga nekk tiktokeuse des fois sax say ay commentaire ñu ngi commentaire lu négativement loo xam ne sax ñëw ko la dégg mais teewul da koy gérer après comme da nga liggéey ñëw fii Dakar sa famille gis la nga rek ci TikTok bi def yenn affaire ñoom nan nan la leen def gisee. waaw dara xam nga parfois da dégg ay message buñ di wax ñi naan waa si femme bu kii nga bokk man mi nga xam ne man maa man maa maa bokk si maa bokk man maa nekk ci ci famille yaa ngi dégg. Hmm. Hmm? yàlla def na xam naa ne famille ma bokk yëpp turuma si yàlla may mooy leen ko ñoom. Hmm. kon man am na am na yenn taxawaay yoo xam ne war naa ko mën a taxawee te man lépp lu may def dinaa xalaat sama famille. Mm. ndax peut-être parfois ni jumte lay am ma def den loo xam ne donte man du ma ko gisee dara wala du ma ko jàppee dara mais sama famille dañ may woo. kenn ku ma woo. Mm. Mista damay gis kii taf di wax ci yow. Mm. ñii di wax ci yow peut-être ñoom dañu comprendre rek mais man bu baax a baax xam ne suubis moo demee noonu boo ci nekkee. loo def ak loo def lépp la ñuy wax. suubis moom boo ci nekkee nit ñi dañuy wax rek mais nit ñi bu ñuy wax. yow noppil te def li ngay def. Mhm. waaw. ok soo bis bi ñuy wax yow noppil te def li ngay def. Mhm. Euh, actuellement nii da nga da nga da nga da nga mhm. euh, li gars yi naan yaa nga ca kaw yaa nga ca dokkoon ñaay nga kër da nga dem soirée euh, ah? hmm, ah, yaa nga ca kaw. ma def wala ma def nii. laa dénk waaw. <laughs> ah da nga doon rek soirée soirée Wally Ballago Seck. boo ñu gis la nga nga nekkoon ci kaw xam naa ne affaire yi xawoon tàng nga jékki-jékki rek wàcc. dugg ca dugg ca ca ca seen ba. Mm-hmm. Euh, lan man nag moom bokk première fois moo koy soog a dem ah mm-hmm. loolu daan def ci vidéo Sëñ Waly di wax ci moom ay wax di impose sans bopp dëgg sans bopp. Mm-hmm. ndax Sénégal am na xale yu jigéen yoo xam ne nekkoon nañ fi. bëgg Sëñ Waly bay miir te kenn ñëwatu taxaw mu ne ko Sëñ Waly kat jotam. man nag ma génn xëy xëy rek. fa dëgg yàlla sama xel mi nekk sañ waat ma génn fas sama mbëggeel waaw ah, wax naa ko fu ne nag dem boog jooy naa ko fu ne déedéet avant may dem boog ah, def naa samay vidéo ah, wax fu ne wax naa ko fa sañ waale wax naa xam naa si tiktok la yàlla dogaloon rek na sañ foofu la may gisee rek mm-hmm. mooy bar la mais ñëpp sañ waale ngay xam ne moom man kese maa bëgg moom bëgg na de ñu koy kandaana yow dafa bëri ah koy kandaana ñoo bëri mais yàlla dogal na man moom man la man man la nangoon man la jox bopp. ok loolu Sénégal xam nañu ok léegi après foofu nga dem nga dem boobu. Mhm. Euh, affaire gi xaw a taxaw naa see. Mhm. xaw social damaa dem bokk. waaw ah. laal VIP ca kaw. Mhm. kaw ba arrangé duma ma ne foog ma wàcc jàkkaarloo suñu waay ci laa wàcc nag jàkkaarloo ma. ok yaa ah, ci laa nekk foofu di ambiance di foo di di di di foofu daal. def sa yëf waaw def sama yëf. ci lay way di way di way di way di ba ba laal son long continent ba. son long continent ba xam yàlla dogal ak diggante boobu yàllaa ko validé kenn mënu ci dara. waaw ba mu laalee long continent rek gëstu gis ma rek. sëñ Waly sourire ba hmm. yëgal ma sa kaw seenam ba. takkal ma lii. muy sama premier cadeau. effectivement waaw lii mooy ax lan wa sëx lan. Mhm. mieux bari du ay caaxaan woo koŋŋ ngi nii li laa ko tuddee. li mooy preuve à l'appui. preuve à l'appui ñu ne woon fi am bañ amee nu ñu def ñi dee nañ samay noonu xalamu nañ. Mbadou. mais lii la yàlla doon wax ndax ñi bëggoon mais man la ma ko yow ñëw ñëw seen rek waaye jox la preuve à l'appui. man maay ñaari xarit jëkkëram. gërëm si dara de. kan la engagé. te da nga dugg ci da nga dugg ci ay ay ay ay ay ay polémique. mooy da nga bëgg a affronter soxna ay dara. xanaa soxna du jigéen may jigéen. non jigéen la ngay jigéen mais c'est-à-dire polémique yi nga di nga atteindre polémique boobu cest jigéen la may jigéen ah. amee ah, loolu loolu. léegi léegi góor lan la yàlla wax ci moom am na droit takk ba ñaata. ba ñeenti jabar. man ma xam naa ne suñu wàll boobu ma takkee fa lay tëjee nag moom ndax man man na maa man maa ñaareel ñetteel ñeenteel. te d' accord la lislaam digle lépp man naa ko dama amat sama place déggu ma saa bopp de waaye damaa joge de. ah bon laa ilaha illallah sëñ mu takkee fii dinaa sensibiliser am lu bari de. loolu ngi li manqué ci moom moo bari te dama kaa war a motal. yow nag yaa ngi doog am problème loolu nii. soxna jigéen la may jigéen rek nañ ko buuxante rek. ngeen ko góor balaa neex dëgg dañ koy xëccoo. nga ne nga ne lii noo lii. waaw ah lan loo sëxlan bi yëpp beneen du ay jaxan lu koom. nga tuddee ah. ndax Wally Seck moo ko takkal surtout à l'appui ñëpp d'accord nañ ni Wally Seck Coumba la ba na mu yëgal ma si kaw seenam waaye ma lu neex Coumba mhm. Sall séeri Wally Coumba Sall ah, sama ñaareel mais attends nekk nekk ko deuxième nekk de parce que ñi ñi ñaa ngi wax ni xam nga euh, clip bu d'après clip bu mu yaa gisee beeg Wally Seck am am na loo ci loo loo ci waxoon li ma ci waxoon mooy soxna soxna mi yaa soxna mi yaa daa bëgg sëñ Wally sëñ Wally bëgg ko kon soxna Maya na war a keneen suñu waale bëgg ko la jox bopp soxna Maya yi mu nekk la war a génn. nee na nee na nee na war a amatul soit day bëgg a jaaxle xamul sax lu ko wax loolu day bëgg a jaaxle boobu xamul tax lu ko wax loolu jaaxle bu sax day door. kon kon kon Wally Seck moo tax mu mu mu andi mu andi message dama jàpp ne woon aussi da ngeen def benn clip benn message la bi jeex na ku nekk fee. ma ne. ma yaa yow yaa loolu. ma ne. sëñ Waale mooy kafaar soxna mu yaa këfu soxna mu yaa këfu de na sëñ Waale taxaw samp na sëñ Waale taxaw samp dëggal boppam nga xool soxna mu yaa ba xam du cëpp sëñ Waale kan lay doxaat nga naan ko nga koy ngay rejeté kan lay naan je t'aime nga ne ko. je t'aime pas est-ce que yow ku nekkoo kon ay quatre-vingts position yooyu. quatre-vingts position su naa la si yow mujj ngaa soxor de. daa mel ne nañ maa iñaane de. ah xam nga yow sa mbokk bool xam nga yow sa mbokk bool bool la yow bu nekk si waal rek. loolu daf may bu nekkee si ñaari loolu daf may arrangé. yow koy arrangé wu bu la ci doxalee nii nga ci. non non c' est dama dama nga xam non non ma war a leeral c' est à dire yow fa nga teg nii mu yaa gisee moom ak suñu wàll a teg dafa nga teg da nga doo moo bëgg moo bëgg moo bëgg suñu wàll te fu leer la bëgg suñu man la bëgg man la jox bopp loolu àdduna xam nañ ko ñii di ma seetaan xam nañ ko loolu yow rek yaa ko dund loolu sa ko dangay taytaylu rek loolu moom xam nga ko moom dangay taytaylu rek taytaylu rek. kon xaw ma kon xaw ma loolu da ngay de euh, da nii rek da ngay da ngay sóobal nii rek. mbokk mi ko. Hmm. kon yaa nii par rapport ma dëggantaan fi bàyyi de fi ma toog nii. dëgg ma pare naa bu yàgg lu ñëw pare naa. bu yàgg xaaral ba. ma ne pour ñëw pour pare naa pour dégg ko sëñ waa lu ma dégg ci moom baax lu ma dégg ci moom sa moo gën a lu ma dégg ko. mais mais mais ànd na relation de neex des fois ngeen di déggante téléphone ngeen di settiwante ngeen di ngeen di sembare. dañuy sembare da maa ngi sëñ waa dañuy sembare lu neex. wal taawoon bi. xanaa da ngaa dof foo kon yow pare nga ko affronté léegi d' accord naa pare nga ko affronté waaw léegi nag. Euh, non si point boobu lañ nekk point lañ nekk léegi après ko bu ñu taxalee bu ñu taxalee euh, fulaar bi. def nga ay réaction yoo xam ni moom xam ni euh, da nga bëgg damaa jàpp ni daf la jàppee comme benn fant rek boo xam ni. fan fan si. ak mi comme comme comme ñëpp rek comme mu mooy si seen wàllu sekk après wax wax bu dem après noonu la jàpp quoi yow sëñ Wade su ma jàppoon fan si dama waye ni ma waye kumbis saa sama ñaareel bi kumbis saa woo naa la ah yow mu jugaan so so ah journaliste bi yow ëpp nga journaliste de ëpp nga journaliste trop yow bay kumbis saa sama soxna fa ñaareel la for fa la jaar digg bi damay bëgg ngeen ñaanal. seetaan nga vidéo bi wala seetaanoo. tey su war rek mën naa dugg sama oto. jeex na tàkk kon loo ca dégg lu mu wax. donc commissaire sama sama sama rakk yeeg nangam naa. rakk ji sa diggante yàlla rakk ji nga dégg. asan si yow mii ñam nga yàlla de ah. kon engagé nga nii. yàgg na. ok léegi nag euh, l'émission tire à sa fin lan ngay tàggoo. waaw maa ngi leen nuyu di kontaan ci yéen tamit tubaarkàlla macha allah. journaliste yi. mais lii la ko tuddee. lii ay caaxaan lu wow comme mu ah. laa gën a fonk samay matériel ndax mooy sama premier cadeau. kontaan naa ci yéen waa waa waa. Euh, Killing Dakar euh, Killing Dakar kontaan naa ci yéen trop. 221 mhm. am ma seen fay ngeen def ci déplacement bi. merci beaucoup. Mm. kontaan naa. sama waay jam bi a jaara busuk wala mañ se bi jaara